الله أكبر الله أكبر jigéen boo xam ne xamuñu ndeyam xamuñu baayam waris ko dégg ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kan moo xam ndeyam ak baayam kan moo xam ndeyam ak baayam ñun suñu yoon daane ci ndeyu baayam ak ak ak baay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que dégg benn nit may wax moom benn mu naan ma yonent moo nu gën ndey ak baay ma ne xanaa yow la gën ndey ak man sama ndey ak sama baay ñoo gën ñoo gën ndey ak baay yonent bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokk yi gannaaw ba nu leen nuyoo ci lislaam noo ngi ñaan yàlla mu boole nu defal jàmm ci àdduna ci ak ci alaaxira bokk yi dafa am sunu benn mbokkum jullit sunu benn mbokkum jullit boo xam ne ci réew mii la dëkk am ay kaddu yu mu yëkëti kaddu yo xamni dama bëggoon nu ànd déglu ko ba noppi ñu wax ci suñu xalaat gannaaw ñun ñëpp bokk dekk ci réew mi nu déglu kaddu yi. ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam kan mo xam ndeyam bayam kan mo xam ndeyam bayam ñun suñu yoon daane ci ndey bayam ak ak ak baay yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que ma dégg ben nit bu may wax ak mom ben mo naan ma bi mo nu gën ndey bayam baay ne xanaa yow la gën ndey ak baay. man sama ndey ak sama baay ñoo gën ñoo gën ndey ak bàyyi yonent kon mbokk yi dégg ngeen li mu wax bu baax li ma bëggoon ñu bàyyi ko xel mooy képp kuy ab jullit képp kuy ab jullit booy wax ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak lu jëm ci alantuuram war nga ci wax ànd caak yar ak teggin lool ànd caak worma nee na ñun soxlawuñ xam ay way juram ci ni mu ko waxee waaye foofu waxul dëgg moom ñun soxla nañu xam ana ñan ñooy way juru yonent bi alayhi salaatu wassalaam soxla nañ ko xam bu baax nee na moom ak baayam moom ñoo gën ay way juru rasulullah moom la gënal way juru rasulullahi alayhi salaatu wassalaam ak nu ñu mën a mel indil nañu fi rasulullah ku bëgg sa àdduna ak sa àllaaxira baax faw nga teg sa tànk fi ko yonent bi teg mbaa sa àdduna ak sa du ñu baax kon au moins ameel nañu njukkal ay wëy juram ameel nañ leen njukkal ñun waaye moom nag ndeyam ak baayam lan nañu indil Sénégal lu ñu fi indil xanaa du yow mi toog fii di ñàkk kerse ci jëmmi rasulullah yow la ñu fi indi way juru yonent bi alayhi salaatu wasalaam bépp jullit bu ciy wax war na ci wax mu ànd ci ak yar ak teggin la muy wax mu wax ko waxin goo xam ne ku ko dégg xam ne kii day leeral day expliquer waaye wax bu ñàkk yar ak teggin wallahi ku toogoon ci réew mi tudd aw turam moom di Moustapha Jaxate tudd aw turam naan ndayam ak baayam ak ni mu ko defee ay doomam yaakaar naan daan jóg kaas wala ñu bari ci réew mi jóg kaas wax ci yow moom nag mu am sañ-sañu toog jël micro ñu dëpp ko ko muy wax ci wayjur wa alayhi salaatu wasalaam di ca ñàkk kersa wallahi Moustapha Diakhaté sa kàddu yi kàddu la yu ñàkk yar lool ak yu ñàkk teggin su ne kàddu nag kaddu la yu woyof bokk na ci kàddu yi gën a woyof ci réew mi waaye ñu ngi la yëgal ni sa kàddu yi ci wayjur wa alayhi salaatu wasalaam kaddu yu ñaaw la yu ñàkk kersa lool ab jullit nga booy wax ci rasulullah andi caak yar ak teggin ba ku yow mi ko am yar nga ci jëmmi rasulullah waye ñak yar lol diko wone wane ci rew mi waye nak di ngeen fi rasulullah ndax moy ki yalla gëreemal bopam moy ki yalla bëggal bopam jox ko risala bi mu ñew fi yërëm ñu lool moom yonent bi bëgg ñu mom moom yonent bi alayhi salatu wassalam yalla niko wama wa illa rahmatan lil alamin yërëm xet wi lol yërëm nit ñi ba ci bàyyi ma yi nga tok di ñak kersak ñak teggin ci ci ay wayjuram mbokum julit bu fekke da nga joom day man nga defarat sa joom man nga defarat say kaddo yonentibi ken du ñak ñàkk sa jëm ci mom su fekke ya ko tay nak dañuy répliquer wu ni la yow yaay ko bon ki nga xamni bëgg ñoo xam sa nday bëgg ñoo xam sa bay bu fekke joomulo ya ko tay bu fekke lool la ñun ñoo bëggul xam sa nday ak sa wai waye bëgg nañu xam ana ñen ñooy wayjuru alayhi salatu wassalam ban delo len jukal ndax ñu ñu andil ki tay li dal mbokum julit la bëggon ñu leral ko bu baax yonent bi kilifa la gu mak di bax diko di ku yàlla bëgg yàlla wóolu ko jox ko risala bi mu ñew fi koko dañ ko wara respecté dañ wara am yar ci mom dañ ko wara jox ciir lool waye kep ku tok di ñaké kersa dañu lay wax ni la yow lañu bëggul xam yow lañu bëggul xam yow mi tok di ñaké kersa Senegal war nañu passé di tok di ñaké teggin wala rasul di ñaké teggin wala ñàkk yar ci rasulullah nañu ko bayyi xel bu baax يال نانيو يالا بولي جيغال يال نانيو يالا بولي ديفال جامو في الدنيا وفي الاخره تا ديفال كو مبولم